léegi neex na quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour la presse gars presse bu yëpp presque ragal ko <laughs> lu ko neex mu wax gars yi tegal ko ko plateau yi ñëpp koy daw un Serigne Saliou Gueye je n'ai jamais vu depuis ma naissance un journaliste aussi malhonnête aussi méchant aussi vilain dafay ñaaw soxor barke dafa soxor ba ñaaw Serigne Saliou Gueye nu melaan seen TV dafa bañ Macky Sall ba yaram bi day day xool day day crise bopp bi bët sew yooyu dem ba ba dee jeex Serigne Saliou Gueye du nit day fen di fen pour yàq deru Macky Sall xoola yëkkati Sonko ici même je demande à mon ami que j'aime bien Bougane Gueye Dany de licencier purement et simplement le journaliste Serigne Saliou Gueye il il est à Sen TV et il fait la promotion seulement de Sonko jamais la promotion de Bougane Gueye Dany il est comme Ahmed Aïdara qui était tout pour Sonko qui a boycotté Gëm bopp pour aller à Yewwi mais il a utilisé la télévision de Bougane pour faire sa campagne et, la radio Zik FM pour être connu. Personne ne connaissait. Avant Saint-TV, mais, mais, personne ne connaissait Ahmed Aïdara. On l'a chassé de la RFM. C'est après qu'avec avec ah Tess, Tess, Tess, avec Adjibassou, maintenant les gens écoutent Tess, Tess, Tess. Mais moi, ça Tess le monde. Venez Tess le monde, tu vois pas. Mais, mais, mais, mais, mais voilà.